bañ nooteel euh, te nekk parti boo xam ni dafa bëgg jóg pour présenter candidat en 2024 effectivement est-ce que xeexu ñu bàyyi détenu politique xeexu troisième mandat xeexu itam justice bañ a dal ci Ousmane Sonko ba neenal candidature am est-ce que loolu du jël seen temps bi yëpp ba nga xam ni àlli kallajje muy processus électoral bi nga xam ni moo ñu war a dëgmal ci élection 2024 mm-hmm. ngeen bàyyi ko ginnaaw mais ñun ci suñu bopp xam nga balaa ngay naam ne fa bu ñu bëggee président Ousmane Sonko te moom mooy suñu candidat mooy suñu plan A ba Z mooy suñu plan alpha ba plan oméga c'est-à-dire bu ñu bëggee kooku ne présenter candidature am il faut qu'on puisse le défendre ci étape yi nga xamante ne ñoo jiitu loolu yu ñu koy utal fagaagal parce que bu ñu seetaanee bu ñu faagaagal ko naka lañu koy présenter du mën a nekk hmm. beneen bi mooy li xew ci te loolu mu ngi jaar ci justice bi nga xamante ne moom la ñu nekk tamit di di di di dénoncer c'est-à-dire man dañ man c'est extraordinaire fu ñu toll ci niveau bi Sénégal c'est-à-dire on est en face d'un nom boo xamante ne dafa dafa ragal a jàmmarloog ñi nga xamante ne moom ñi ngi wax ne moo leen ëpp doole c'est-à-dire man cette lâcheté mosul am dans l'histoire politique du Sénégal où quelqu'un décide de ne pas aller compétir avec c'est comme si quelque ku bëgg a nekk roi des arènes te bëggul compétir ak ñi nga xamante ne ñoo yore couronne bi c'est-à-dire il faut que le jeu démocratique reste ce qu'il a toujours été Abdoulaye Wade nekk na fi tëjoon Idrissa Seck en avant avant 2007. Mm-hmm. avant 2007 di jot jot libéré na ko ba Idrissa Seck compétir. Mm. Abdoulaye Wade fii la nekkoon mënoon na toppee Macky Sall à l'époque bu mu ko daqee assemblée nationale mënoon na ko tra traquer jiiñ ko lu ne tëj ko defu ko def ko bàyyi mu compétir. mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un atteint un niveau boo xamante ne il représente une menace électorale maanaam de conquête du pouvoir par les voies démocratiques mu nekk une cible boo xamante ne lu ne war nañ ko teg ci ndodam man bu pensez que c'est normal que kenn nit dans ses moindres déplacements est poursuivi par la police gazé systématiquement ces militants arrêtés ba ñu toll ci Sénégal ci jamono joo xamante ne un parti politique qui fait des actes d'éducation citoyenne dans dans dans dans la dans les missions des partis politiques dañu ne les partis politiques dañu war di éduquer. Mhm. di former un parti politique qui fait ses flyers qui déroule une opération qu'on appelle wër ndomb qui va aller voir les primo-votants yi nga xamante ne ñu bari ci ñoom amuñu carte d'identité nekkuñ ci liste électorale yi di waxtaan ak ñoom pour ñu comprendre la sacralité du du droit de vote pour ñu mën a nekk dans les conditions de pouvoir euh, l'exercer mhm. nga dem jàpp dem téye leen police yóbbu leen ci justice ba justice jàpp na ñooñu dañu leen war a ba di leen tag teg daanu six mois avec sursis. d'accord euh, Bassirou foog ñu taxaw ci dossier judiciaire yooyu sax daanaka loolu mooy nekk transition bi parce que euh, demain. en principe ci la euh, procès bi nga xamante ni moo opposé Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko di procès de diffamation boobu supposé euh, moom la ñu war a amal suba la question c'est que est-ce que votre leader va va répondre à ce à ce procès-là non xam nga l'organisation de la défense du du président Ousmane Sonko dans ces dans ces dossiers de judiciaires là dont on aurait pu sérieusement se passer dans un état sérieux et entre ses mains entre les mains de ses avocats à la veille de chaque convocation ñoom dinañ réunion ci li ma dul fekkee tëral stratégie boo xamante ne buñ ci déggoowee ak moom il s'en tient à cette ligne la suba xamaguma ce qu'il va faire parce que xam naa ne dina war a waxtaan ak avocat yi dans la journée d'aujourd'hui te xam naa ne defagu ko donc ci fa ma toog nii xaw ma exactement lan lay def. mais mhm. procès boobu yéen naa ngeen ko gisee cette affaire de diffamation là. mais c'est ridicule c'est ridicule mooy li ma lay wax saa à dire cette obsession là à vouloir éliminer un candidat maanaam ragal ko ragal goo xamante ne bëgguloo compétir ak moom di priver les Sénégalais le droit de choisir par le vote. c'est-à-dire obsession à éliminer quelqu'un jàpp nit rek noonoo du bokk du bokk du bokk warul loolu warul nekk lu nguur di bàkkoo nguur lu muy bàkkoo mooy def naa lii def naa lii def naa lii bu ngeen bëggee continuité ci lii ma def nii bu ngeen bu dee rafet lu ngeen ko vote leen kii mais di dem di seppi ñoo xamante ne ñoom ñoo war a voté ñoo ñoo war a bokk ak ñu dul bokk on ne peut continuer dans ce pays là accepter ça. mais maintenant dans le dossier de de de diffamation la kii wax ne dañ ko diffamer. ci ñaata plateau la toog reconnaître que un rapport existe mm-hmm. n plateau nee na sax moom moo demandé à ce qu'il soit audité li woon yoon c'est que ce rapport là devait être public depuis longtemps mu fuité kii nekkoon ministre de l'économie et des finances di Amadou Ba reconnaître que le rapport a fuité te fenn rek la fuité woon mooy ci Dakar Actu moom ci boppam journaux yi en ont fait leur chou gras maanaam presse bi def cee wax a wax a wax nit ci émission émission ci ba sonn un livre a été écrit ci Prodac bi ñu tudd fa turam ne ko lii yaa ko def te waroo ko woon def te rapport bi génne na ko mais vous pensez que dans un état sérieux qui veut revendiquer une vitrine démocratique bu ñu xamee woon le fait que man ma ne yow Astou a été épinglé dans un rapport loolu war na mën a tere man man Diomaye ma mën a candidater à la présidentielle de, à, à, la présidence de la République. Mm -hmm. cest dire on est en train de nous faire croire que il est possible qu'au Sénégal en deux mille vingt jortu loolu. non j'arrive mais xam nga ne ma mbay lan lay dàq ci loolu Mame Mbaye c'est même pas lui qui est derrière ça on l'a activé comme ni ñu activé ñeneen ñi nga xam te ñu ngi nekk di déposer des plaintes ridicules pour maintenir le son Sonko à Dakar dans le cadre d'une d'une opération boo xamante ne ça se déroule avec la commission de jublu est parce que dossier bi à l'origine diffamation la woon mais gis nañ ni yokk nañ ci injure yokk nañ ci aussi faux et usage de faux sur document administratif mm. oui. est-ce que avec ça yaakaar nga ni Ousmane Sonko peut échapper à une non. condamnation mais xam nga c'est-à-dire lii lii lii lii moo lii moo ma metti ci Sénégal ci fu ñu toll nii quoi c'est-à-dire le procureur de la République boo xam te ne dañ ko saisir pour ne ko diw teg na ci man tuuma mm-hmm. moo ci dem di yokk ne dañoo saaga borom waxul ne dañ maa saaga mm-hmm. procureur moo ne non yow da nga ne def la tuuma mais man gis naa ne moom def la saaga bàyyil ma yokk ko ci. procureur moo ne d' accord même li nga xamante ne moom la produire c' un faux rapport léegi bàyyil ma yokk ko ci c' est à dire on cherche systématiquement à condamner mais a condamner dans quel objectif. la condamnation est un moyen. Mm-hmm. mais objectif bi c' est essayer d' empêcher une candidature. mais loolu moo ruslu ci Sénégal bu ñu toll ni man j'aurais pas été fier tant que président de la République un citoyen parce qu'il a dit à un autre citoyen que tu as été entre guillemets épinglé par un rapport que cette personne la perd son, son droit à être président de la République mais loolu yëpp est que njortu leen condamnation peut-être loolu lañ ciy visé xëy na. Euh, d'abord est que loolu mooy seen yaqin yaqin boobu ngeen am. man dama gëm ne ci ci dossier bi la ñuy président Sonko ba tere ko mu mu nekk président de la République euh, euh, candidat à la présidence de la République ba pare sénégalais yi toog di seetaan loolu ko cest dire ce dossier-là, il est question de, 4, de 29 milliards pour certains, et selon Birahim Sek, mmh. qui n'a fait l'objet d'aucune plainte, bin de livre, tout de fait wax ko en quoi il a fauté Mambaïna, bataille, topul Birahim Sek, mi nga xamantene bind na ci livre bu ëpp 150 pages. Ça signifie quoi Que Birahim Sek aujourd'hui, pour avoir écrit un livre, euh, bien qu'il ait écrit un livre, ak lu mu bind livre yëpp ci affaire Prodac. wax un un carnage à à trente six milliards xaw ma un à trente six milliards. tudd fa Mame Mbaye Niang teg ci moom ndodu tuuma baaramu tuuma Mame Mbaye Birame Seck a le droit d' être de la à la présidentielle. il n' est visé par aucune procédure judiciaire c'est que ñoom ñu jàpp ne leen Ousmane Sonko leen soxal. mais est ce que est ce que autre bi aussi mooy. Mhm. dégg nañu Ousmane Sonko ci làmmiñu boppam mu ne dafa def lapsus entre IGE ak UGF. dégg nañ ko itam bu yàggul bi mu demee Kër ma Massar mu ni rapport bi ay la yéwén ci internet la ko gisee est-ce loolu aussi du fragiliser sa sa ligne de défense gis nga xam nga lan la par rapport ak ci dossier bi man dafa mel ni tey ma ne woon Mamour Diallo que tu as été épinglé par le rapport de nag wala may bi may wax OFNAC ma juum ne que tu as été épinglé par rapport de l'IGE sur dans l'affaire des 94 milliards ñu ne ma ok Diomaye puisque wax nga loolu bien que le rapport existe bien qu'il épingle Mamour Diallo tu perds tes droits à être président à être éligible à une présidence est-ce que vous vous rendez compte du, débat que nous sommes en train dans un pays qui se veut sérieux quoi ouais. dire est-ce que ban Sénégalais moo war a toog tey ñu ne ko président Sonko day ak li ngeen ko bëgg yëpp jox ko bopp mu jaral leen ngeen di xeex pour moom ba ay bakkan di ci rot fu mu génn ngeen topp ko ngeen seedal ko njub ak bëgg Sénégal tu es épinglé dans par un rapport ñëpp wax nañ ko nag avant moom mais loolu rek rek rek moo tax dootul nekkati président de la République mënatul nekk candidat vous vous rendez compte mm-hmm. cest dire loolu bu taalee réew mi on aura été ñun on été à un niveau de de de de extraordinaire loolu loolu Sénégalais yi waruñu ko sax dugal seen bopp ci lu mën a nekk ba ñu toog di ko waxtaanee avec pendant autant de temps mm-hmm. gis nga IGE IGF entre un E F mënuñu ci tere nit mu nekk président candidat à une présidentielle de la République si le pays veut se se considérer comme sérieux et si ce peuple là amoon na yéene ak aspiration euh, élire le président Sonko comme étant le président de la République loolu je pense pas que ñoom bu ñu persister lu ci métti rek mooy comment on peut activer la justice comme ça c'est-à-dire nga dem réformer sa code électoral dugal ne que pour une simple condamnation à un sursis Mm. sursis. mën nañu la ci tëj. wala deux cent cinquante mille francs d'amende. pendant ce temps là mën nga ci ñàkk sa. mais pendant temps là éligibilité mais pendant ce temps là qui est-ce qui siège au conseil des ministres ñaata rapport a leen épinglé ba ci dernier rapport cour cour des comptes. Mm. ñooñu ils gardent leur droit à être éligible ak ñeneen ak ñeneen ñi nga xamante ils ont été condamnés par le passé à d'autres à autre chose cest dire on ne peut au Sénégal accepter que ce débat là prospère et ñu dem ba def ko. une arme de mise à mort d'un can d'un d'un d'un d'un opposant politique en se pen en en s'appuyant sur le greffe de la justice mooy li ma rek c'est-à-dire processus électoral bi da nga koy ko tege na le mais est-ce que le problème en réalité c'est moins la condamnation que disposition yi ñu def ci code électoral bi ba nga xam ni sursis sax bu ñu la ko tëjee. amende la deux cent cinquante mille francs nga perdre sa éligibilité est que le problème c'est pas ça en non, aussi le délai parce yëpp mi ngi bu ñu leen de sénégal sénégalais yenn saa bu ñu dee xeex dara mhm. ñëpp ne sont pas nekkuñu au même niveau d'information et de préoccupation ci conséquences yu mu mën am mhm. nit ñi bu ñu doon def ces réformes la ci code électoral bi opposition bi dafa yuuxu ba sonn man bi ñu doon def la loi sur le parrainage man xaw nañ ma jàpp yóbbu yóbbu ma ci kaso parce que j'étais dans la rue xeex nañu lu ñu mën ñu am ay nit ñu ñu jàpp tëj leen mais bu ñu demee ba parenage bi di an di di di gàllankoor seeni candidat la ñu door a xam ne que bu ñu waree xeex xeexuñu ko woon dafa am loo xamante ne nguur gu am majorité am police am armée am gendarmerie am justice bu ko bëggee voté lu jaarale ko assemblée nationale peuple bi moo mën a taxaw nu mu taxee woon 23 juin pour loolu ba ñu am yenn saa yi taxawaay boobu dina manqué parce que xëy na niveau d' information bi et de sensibilité bi c' est mm-hmm. mais la justice quand moo war a bañ nekk le bras armé du pouvoir boo xamante ne moom la ñuy utiliser pour liquider des adversaires politiques loolu dafa commencé indi façon bi ñuy xoolee justice boo xamante ne bu yàggee mën na jur loo xamante ne kenn ñaanu ko ci yàlla ci réew mi. mais ba ci ndaw ndaw yi nga xamante ne ñoom la ñu euh, téye jamono ji gis nañu euh, le cas de Hannibal Djim ak ñeneen ñi nga xamante ni ci internet bi la ñu nekk sur les réseaux sociaux di organiser yenn ci cotisation yoo xamante ni c'est pour des financements soit seen parti wala financement wu li nga xam ne moom mooy sécurité de votre leader aujourd'hui on a vu que ñi ngi en prison et que am na ay chefs d'inculpation d'accusation yoo xamante ne tegu na seen kaw dont lu ci mel ni trouble à l'ordre politique ak trouble à l'ordre public ak yu demee noonu et l'histoire des forces spéciales toujours aussi ngi nekk pendante devant la justice est que tey loolu warul tax ngeen revoir un peu votre manière de de, de financer ou bien euh, en tout cas fi xaalis bi di jaar parce que ñooñu su ma juumul également ci yooyu lañ leen jàppee woon ngeen xool li nga xam ne moo gën a transparent pour pouvoir financer vos activités politiques. Non, mais mais lii lii dara gënu ko transparent dara gënu ko transparent ñun bu ñu ko dee def c'est en direct suñu militants yi ñooy cotiser en direct ñu wax sénégalais yi suñu militants cotiser nañu. dans telle telle telle telle, telle cir euh, circonscription départementale wala dans telle circonscription section pays. de, de la diaspora la cagnotte, je parle de la cagnotte la plus récente. mooy ban. muy auto euh, 150 millions. mais loolu laay wax si les Sénégalais décident jëndal président Sonko auto comme ni ñu ko defalee Guy Guy Marius Sagna en quoi ça pose problème te ñu koy def au au vu et au su de tout le monde transparence foofu la bu ñu bëggoon lu transparent wul. dañuy dem xooli ji ñoo xamante ne seen xaalis setul ñu jaar ci suuf ñu jox ñu xaalis bu ñu bëggoon lu transparent wul sax xëy na ci président Macky Sall la ñuy dem ne dañu bëgg a négocier ak yow am oto mais bëgg lu leer lu sell lu ñëpp teg seen bët moo tax ñuy def lépp au au vu au de tout de tout le problème bi du ñun problème bi mooy régime boo xamante ne dafa nekk di jàpp ay nit dina wéy jàpp naa ko léegi daa te teel leen ko teel leen ma ko fii parce qu'il ma dérange parce que kontaanuma ci moom ma dem xooli ji li nga xamante ne moom laay teg ci moom comme